ami fidèle internaute de Télé Sénégal ngi leen nuyu di leen euh, jaajëfal di leen kontaane comme euh, saa su nekk rek waxtu bi jotee seen émission kaddu askan wi daal di dikkaat di émission bi nga xamante ne mooy jël euh, kaddu week xalaat bi daal leen koy jébal ngeen ngeen fi ngeen daal di nekk ngeen di mën di woote ngir joxe seen xalaat en direct ci waxtaan wi ginnaaw bi nga xamante nag ñun nuyu nañ leen vraiment di amaat mbégte saa su nekk rek teew fi ngir féegoo yéen waxtaane lépp li nga xamante ne soxal na réew mi soxla ci bu baax a baax seen xalaat expertise par rapport aux différentes questions yi nga xamante ne ñooy amee ci réew mi wala ci bitim réew te soxal bu baax a baax vraiment nekkinu sénégalais yi moo xam ñi nekk fii wala ci bitim réew moo taxit ah, rédaction bu Télé daal leen indi la waxtaan wu am solo bi nga xamante ne moo di kaddu askan wi te vraiment miin ngeen ko lool ndax tàmm ngeen cee participer ngir bokk ci nag yomb na da ngeen di composé numéro bi di mën a may mbokk internet en direct euh, ci waxtaan bi vraiment may jëfal sama réalisateur. Ah, di Rach euh, Diallo tey moom moo nekk ci xarala gi bi nag ah maa ngi koy nuyu ak toute l'équipe technique mbokk yi tey nag li ñuy waxtaanee bokk na ci vraiment situation bu euh, bon buñu ñu mën a bañ a rafetlu démb ci ki nga xamante ne moo di Abdourahmane Diouf moom nekk candidat déclaré à la présidentielle moom ngi nga xamante ne itam euh, ci jamono ji nga xamante ne ñoo ngi wër ngir amal parrainage yi moom itam ci la daal di profité ngir rek euh, saafoonte ak askan wi itam wër ngir euh, daal di leen jaay programme bi nga xamante ne jàpp nañ ne fa la askan wi war a jaaree moom ngir daal di koy parrainé waaye itam suñu jotee ci élection ñu daal di ko koy daal koy may mu ñu ñu ñu wooteel ko donc loolu nag daanaka la mu doon def niki démb lépp dañ ko daal di gantal ba sax daanaka am na ñoo xamante ci ay ñi moo àndaloon sax jot nañ leen leen eh, jàpp ba ay jafe-jafe ak digganteem ak wàllum yoon vraiment lii la daal di am mu nekk vraiment une boo xamante ne population bu Sénégal rafetlu ñu ko ndax laata moom Abdourahmane juuf gis nañ ki nga xamante ne moo di Amadou Ba moom itam candidat comme Amadou comme ki nga xamante ne moo di Abdourahmane Diouf ca parcelle mu daje fa mbooloo mu bari te moonte de policier gendarme wala kenn ñëwul di ko aye di ko aye li ni mel donc pourquoi ñuy am benn disproportion par rapport a acteurs politiques yi ñi nekk ci nguur gi di mën a amal seen i manifestation di dajale seen i mbooloo ñi nekk ci opposition bi ñoom suñu sax wër yàqu parrainage dajale ak mbooloo su ndaw ñu ñëw tere leen ko ak ak loolu ndax du tax askan wi ngeen baal ma gën a jéppi eh, ñi nga xamante ne ñoo ñoo fi nekk loolu eh, benn ponk la ñaareel bi mbokk yi xam ngeen ko. ah Ousmane Sonko ak ah, Pastef daanaka référé bi nga xamante déposé nañ ko ci kanam yoon lankal nañ leen ko kon jamono jën a gif yi su fi yemandee mën nañu wax ne Ousmane Sonko du bokk ci élection yi waaye nag jeexagul ndax ci jeudi bi ñoo ngi xamal ko ne dinañ dem fi nga xam ne moo di Ziguinchor foofu nag layal foo Eh, ci mbir yi li nga xamante ne moo di ni ñu ko daal di eh, génnewee ci liste électorale yi donc foofu itam danañ fa jàkkaarloo ak àttekat eh, ba nekk ci Ziguinchor waaye nag li tax waxtaan wi am solo lool mooy su génnee foofu dinañ xam ndax Pastef daana am candidat am déet ndax jamono ji nag juróom ci ñoom daanaka am nañ seen fiche parrainage ba ñoo koy remplir kon kan ci ñoom la Ousmane Sonko war a tànn su fekkee ne euh, candidature boppam moom daanaka euh, gàntal nañu ko loolu benn la bi ci mujj mooy comme je l'ai ki nga xamante ni moom moo di Amadou Ba euh, premier ministre moom moom rek la ñu daal di maintenir ci gouvernement bi ki nga xamante moo di Antoine Félix Diome nekkoon ministre de l'intérieur ñoo ngi wax naan ah, jëlee nañ ko ci guvernement bi loolu ndax am ngeen yaakaar ci gouvernement bi di ñëw moom euh, Félix Diome euh, nee nañu sax soo matul suba gouvernement bu bees bi dina génn ndax am ngeen yaakaar ne Félix Diome dana dellusiwaat ci poste ministre de l'intérieur ba mu yoroon euh, donc war a nekk ki nga xamante ne moo war a organiser élection yi mbokk yi donc ñetti ponk yi dañ leen indil ku ci bëgg a joxe sa xalaat da ngay composé 77 810 90 mooy numéro bi nga xamante ne moo leen mën a permettre yéen mbokk internet ñuy seetaan ngeen mën a dugg en direct daal di euh, bokk ci waxtaan mi fay jaare itam di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñuy seetaan ci jamono ñi di leen ñaan aussi ah ngeen di liker bouton j'aime bi plume rare maa ngi lay jaajëfal ak soxna Ibnu Ousmane Sonko vraiment euh, di euh, kontaan ci yéen bu baax baax di leen nuyu vraiment di leen ziar ci ñi nga ngeen ñëw bokk see ci waxtaan mi nag bokk ci direct mën ngeen ko def soo leen composé 77 810 90 90 77 810 90 90 wa ilaa nag ngeen daal di eh, jaar ci chat en direct mooy comme ni ko eh, soxna bu soxna Ibnu Ousmane ko defee moom dafa bind ay message di eh, nuyoo vraiment di kontaan ci moom bu baax a baax a baax a baax di ko fay di ko fay nuyu vraiment kontaan ci moom Plume Radar itam ah, ñoo ngi koy jaajëfal di jaajëfal itam ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy jamono ji vraiment ñoo ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy def sama xel di dem ci Ibrahima Playa ah, ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax itam di kontaan kontaan ci moom hmm, ñoom Gilbert vraiment Cheikh Oumar euh, Binta Alou vraiment tous les Sénégalais qui nous suivent tous les même tous les Africains dois-je même dire qui nous suivent euh, dans l'intérieur du pays comme euh, dans la diaspora donc dañuy profiter vraiment ci tribune bi di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom itam di ko ñaanal képp koo xamante ne yaa ngi ñuy bàyyi xel jamono ji donc waxtaan bi ubbeeku na képp koo xamante amee nga xalaat ci mbir mi ñuy waxtaanee da ngay composé 77 810 90 90 mooy numéro bi nga xamante ne moom ngeen gis noonu di défilé ci écran bi mën ngeen composé numéro bi moo xam appel normal wala whatsapp rek waaye daal l'essentiel bi mooy boo ko composé incha wara bi di mën a dugg en direct daal di jàngateeg ñun euh, ponk yi nga xamante ne moom la ñu koy indil maa leen fàttali ah euh, na ci ki nga xamante ne moo di Antoine Félix ministre biir réew mi maanaam ministre de l' ñu daal di koy génnee ci gouvernement bi daanaka gouvernement bi yëpp lañu ñu daal di tas donc du ñu singali mais li sabab laaj bi mooy on nous annonce vraiment un nouveau gouvernement d'ici 48 heures ndax am ngeen yaakaar ne ak euh, circonstance bi ñu nekkee ak tous les événements yi nga xamante ne jot naa am euh, ci réew mi li xewoon mars 2021 les soi-disant attentats yi nga xamante ne jot nañ ko fa am waxi euh, terroriste ak euh, force occulte lépp ci loxoy Antoine Diome la jaar ndax sénégalais jamono ji euh, am nañ yaakaar xattil ne Antoine Diome su génn ci gouvernement bi xëy na ñu changé ko poste ndax am ngeen yaakaar ne lii la président Macky Sall dana ca bàyyi xelam déet su nekkee nag moom la ñuy ci poste boobu ndax gis ngeen ci élection yu ñu jëm ci atum mu organiser ko te sénégalais duñ ci am xel ñaar lii la mbokk yi ku ci amee xalaat 77 810 90 90 ngay def ah waaye wax ci ñaareel bi ki nga xamante ni moo di Abdourahmane Diouf jiite parti bi di awale démb da doon def ndaje ak ya ah, soppeem ak itam ñi nga xamante ne ñoo koy ah, topp ngir rek si wàllum parrainage bi waaye nag la mu ca jëlee moo di ay tere ak gazé lii nag nekk loo xamante ne vraiment sénégalais yi mënuñu ko comprend ndax laata moom ki nga xamante ne moo di premier ministre Amadou Ba gis nañ ko ci dimanche yi mbooloo mu takko mi nga xamante ne jot na ko dajale parcelle donc lan moo tax ñuy seetlu disproportion xamante ne noonu la force de défense et premier ministre nekk candidat déclaré di politique ca parcelle di dajale mbooloo mu takku Abdourahmane Diouf ak i fukki nitam di wax ak askan wi ñu daal di ko koy aye donc pourquoi cela ndax loolu ngeen baal ma ci kàddu gi je l'ai dit du indi akub jippi jëmee ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ndax dañuy sentir benn jaay doole boo xamante ne dañ koy exercer ci euh, leur opposant ndax loolu itam ah, du tax ba askan bi sax day fépp contre ñoom donc lii lee ku ci amee xalaat mën nga woote ci 77 810 90 90 77 810 90 90 bi ci mujj mooy maa ngi leen ko doon wax euh, incha allah jeudi dinañ xam Ousmane Sonko ak radiation ci fichier électoral yi fan lay mujj bi nga xamante ne liberté bi moom lankal nañ ko ko donc incha allah bi nga xamante ni moo di tribunal bu Ziguinchor fa lañ ko war a fa lañ war a wax naan Ousmane Sonko dañ koy maintenir ci am nañ ko ci génne une bonne fois pour toutes la ca mënti xew nag dinañ xam ndax Ousmane Sonko mi ñu tànn moom dana nekk candidat wala moom su nekkul candidat kan lañ daal di tànn donc lii su nekkee am ngeen ci yaakaar itam mën ngeen wootee ci 77 810 90 90 77 810 90 90 may jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñuy seetaan vraiment merci pour les cœurs gis naa sànq ba tey gars ñoo ngi tapoté cœur bi vraiment am na solo merci beaucoup mais li ci ëpp solo aussi moo di live moo di bouton j'aime bi nekk ci kaw ngeen ko daal di bës ndax loolu lay tax vraiment vidéo bi di lawee fu nekk Ibrahima Playa vraiment man maa ngi lay jëf jaajëfal Ibrahima Playa nag vraiment man su ma sañoon def témoignage